ñu ñëw rek ngir fàttalante ak yéen te rawaat na di leen fàttali ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe na ko ginnaaw bi nga xamee ne pandémie pandémie bi xew na muy jëye joo xam ne dafa daj àdduna bi te eh, yàlla rek moo ñu ci mën a musal kon ndigal li jiitu mooy ñu fas yéene tuub def tadaron toroxlu tuub tey jéggulu tey ñaan suñu borom mu musal ñu ci te te te nag suñu biir yëpp ñu wekkil ko suñu borom nag xam ne suñ borom moo yor lépp lu ko neex mooy am lu ko neexul du am waaye nag ndigal li nga xam ne jox na ko jox nañu ko ci ñi nga xam ne ñoo féete ci waa ci wàllu xam-xam ci wàllu wér-gu-yaram ndigg li ñu jox itam ñu sàmmonteeg moom bu baax muy cet gi muy euh, sorente gi muy waañ joxante loxo gi bàyyi joxante loxo gi muy mm, di ak di laal yi nga xam ne day rey day rey ay microbe yu mel ne gel yi yooyu yëpp euh, ñu ñu war a sàmmonteeg moom ndax àdduna saayir ak baatin la xaqi ak euh, sharia ak xaqiqa la euh, waaye waaye mu jaamu yàlla ak sabablu ndax soo lu ci moom yàlla suñu borom moo ñu ko digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko jottali ndax moo waxoon ne fu ngeen déggee euh, jéyee muy pandémie jéyee ju xew bu leen dem bu leen dem foofa waaye nag fu mu leen fekk itam bu leen fa jógee dem feneen kon loolu tam ci ci addis boobu rek ma di ci gën a gën a gën soññ suñ mbokk yi nga xam ne ginnaaw bi nga xam ne waa réew mi ñu yor réew mi ñu jiite réew mi tëj nañ dëkk yi ngir bañ wàllante gi am suñ mbokk yi nga xam tam dañuy dañuy jël lu mel ne ay li ñu li ñu wooye aloo Dakar di di trafiqué di di jël ay nit di yóbbu loolu tam bokk na ci li nga xam ne da koy tasaare te itam xotti ndigal la xotti charte la ah, kon nag maa ngi woo ñëpp ñu gën a góor rek ci Eh, ndigal yi nga xam ne sëriñ sëriñ bi jox nañu ko ndax bu dee eh, eh, jaamu yàlla dafa dafa dafa dafa mooy li gën a am solo wa maa xalaqtu jinna wal bu illaa liya'buduun suñu borom dafa wax ne sa binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma jaamu googu nag ah, te julli di dafa wokk ci yi gën a am solo moo tax ah, bi nga xam ne mbir mi xew na ah, Cheikh Mouhamadou Mountakha Euh, ànd ak waa réew ñoom ñu gisoon ne daje daje ñuy daje di di ko wàllante lu ñu war a bàyyi la moo tax ba gis ngeen màggal gu mel ne Kazu Rajab nga xam ne màggal gu rëy la gu am solo goo xam ne ñëpp dañ koo fonk ah, waaye waaye bi mu ñëwee bi sëñ bi joxee ndigal ngir sàmmonteeg eh, wér-gu-yaram ak nit ñi ak bëgg nit ñi mucc rek waaye ñoom itam dañoo am dañ ci seenu ci seenu mbaax ci seenu taalibe dañoo daal di bàyyi lépp ah, jumaa ji itam jumaa itam bi nga xamee dañu dañuy jumaa yëpp moom mu ñaan ne kon mu waxtaan ak ñu waxtaanal ñu xam ne mën nañu jumaa jumaay Tuubaa nañ mën nañu ko bëyee tey ndax mën jël li ci war lépp ci ay jumtuwaay euh, ak ak ak li mu ci soree di diggante nit ñi di soree ñu jël jumtuwaay yi nga xam ne moom dana tax ba micro bi du tasaaroo du tasaaroo day rey micro bi ak yëpp euh, jël jël ko jël ko ñu ñu defee ko noo xam ne euh, benn wàllante mu mën na caa bañ a am waaw bu ko defee jeneen jumaa ju mel ne moom itam bu fekkee ne euh, mën gis na ne moom man gis na gis na ne mën naa sàmmonteeg loolu ba di ko def itam ba ba ne day julli itam mu sàmmonteeg li nga xam ne jumaay Tuubaa ma ngi koy sàmmonte muy mbooloo mi bañ a bari ndax dana woon dal fa ñu joxoon digal ne nañ ko yemale ci liggéey jumaa ja jumaa ja rek moom wax dëgg yàlla xidma bu a bari ñi ci des mu jox leen mu jox leen digal ne nañu jullee seen kër kon kon jëpp jëpp jumaa joo xam ne bëgg naa def na ñoom itam war naa fexe ba mel na ñoom muy nit ña bañ a bari te te itam ñu bu ñu demee ci biir ñu soree te itam ñu ñuy raxasu ak laal ay gel yoo xam ne dana tax ba euh, microbe boo xam ne laal na ci loxoom nit du ko du ko mën a waal ndax microbe bi microbe moom dafay dafay yéeme lool ndax euh, luy naaw ci jaww ji rek la bu njëkk dañu wax naan euh, boo jàkkaarloo nit ki bu sëqatee mën la ko wàllu waaye léegi dem nañ ba xam ne boo jàkkaarloo nit ki mu wax sax wala mu noyyi sax mën la ko wàll kon doon nañu wax naan ab mètre waaye am na ñoo xam dem nañ dem nañ ba ne sax mën naa man mën naa naaw ba àgg ci ay ay ay ay ay juróom juróom benn mètre kon li li gën a am solo mooy euh, sore gi waaye itam wàññi dox bi ci luul farata ndax jóge ci jóge fële jëlee ko fa yóbbu ko feneen lool lool li ko gën li li ñu gën a maa a dimbali rek mooy wàññi dox bi ak wàññi déplacement yi comme ni ñu ni ñu ni ñu ko digalee kon daal mbir la moo xam ne mbir mu doy waar la ndax li tax mu gën a doy waar mooy Euh, da da day reye waaye li gën a am solo mooy dafa gaaw a tasaaroo di gis gis ngeen li xew ci àdduna bi euh, am na ci ñoo xam ne par par par bis ay junni ñoo ciy dee junni ay junni ay ay benn benn la ñoon wax ginaar bi ñuy wax ay téeméer léegi nag am na réew yoo xam ne bis bi set lopp junni dana fa dee te itam kenn xamagul fu ndax lu mu lu mu gën a tasaaroo euh, wàllante gi di gën a bari dee gi di gën a bari kon daal moom nañ nañ nañ ñaan yàlla yàlla musalum ci bu ko defee yi nga xam ne ñaan yi nga xam ne Euh, mi ngi ci alxuraan mi ngi ci sunna yëpp da da da day day dañ ko ñaan ngir balaa ñu song ko waaye xasida yi nga xam ne Serigne Touba def def def na ko def na ko te doon te doon ci ñaan boromam mu mu musal mu képp koo xam da nga koy jàng wala nga mokkal ko mu musal la ci balaa musal la ci wéradi wéral sa yaram yaram ñu fonk di ko jàng kon daal mbokk yi euh, loolu mooy li ci gën a am solo góor lu baax fas yéene jaamu yàlla waaye waaye waaye waaye ñu xam ne itam ndigal yi nga xam ne sëriñ bi mu ngi ko yëgal ndam jaamu jaamu yàlla gi la bokk ndax euh, s euh, yàlla si yàlla suñu borom mi mi nga xam ne moo ñu dénk jaamu yàlla moo ñu dénk sàmmoonteeg wér-gu-yaramu nit ñi ak muccu nit ñi ndax dafa am juróom yoo xam ne dañoo wax ne diine lépp li mooy sàmm yooyu mooy sàmm diine sa sa sàmm diine diine nit ñi sàmm euh, nit seen bopp ba musal leen ci ci ci ci fa wér-dég yu mel noonu waaye sàmm xele nit ñi Euh, sàmm euh, alal nit ñi sàmm der nit ñi wala ngirti ngirti nit ñi waaw kon yooyu yëpp ñu war ñu war a sàmmonteeg moom ñu xam ne ñu xam ñu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo jàngaloon lu am solo ndax ndax dana woon euh, màbb kaaba ga kaabu kaaba kaaba kaaba gi ndax xam ne moo gën a màgg ci lu ci ci ci barab barab barab yi ñu te teral da wax ne màbb kaaba ga boo gën a yomb moo gën a woyof rey kenn nit te réyoo ko ci àq réyoo ko ci àq réyoo ko ci yoon kon nag ñu xam ne waa fexe ba nit ki mucc itam te mën a mën a jullee këram mucc moo gën fe moo gën di ko forcé ci mu dem mu dem julli ci jumaa ja wala wala ci jàkka ja bala leen di ko fa dal kon nañ nañ nañ nañ bu ñu mënta sàmmoonteeg sart yi nga xam ne moom la ñu yor wér-gu-yaram wax jullee sa kër dafay daal di gën loolu kon nag ñu ngi leen di woo woo bu baax loolu rek mooy la ci am solo di ñaan nag ci mujj rek yàlla boole ñu musal boole ñu euh, sàmm